mardi juin son excellence monsieur Macky président de la république du Sénégal ma nga jëm ca dëkk bu mag ba di Thiès l'espoir de la jeunesse le modèle le travailleur le républicain l'ami des Thiessois de monsieur Abdoulaye Dièye président du mouvement Siggi Jotna kii la Thiès di ndamoo kii la Thiès di sago kii mooy ki Thiès di sant monsieur Abdoulaye Dièye ak mboolem ñi ci mouvement Siggi na nee nañu képp kuy doomu Thiès ak foo mën a nekk na ñëpp génn ñu ànd teeru tatagal dalal monsieur le président de la république ca Thiès son excellence Thiès le mardi 29 juin 2021 dans le cadre de ses tournées économiques nationales la population de Thiès aux côtés de l'infatigable Abdoulaye Dièye président du mouvement Siggi Jotna souhaite la bienvenue au président Macky Sall